asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen ñuy topp toujours ci seen émission al ihsan di rafetal sa diine ngeen ànd seek euh, seen association boobu nga xam ne moom ngeen miin di AIS association islamique pour servir le soufisme waaye nag ànd seek TFM religion ñuy waxtaanee li nga xam ne rek mooy rafetal sa diine comme ni ngeen ko xamee tey nag dëgg-dëgg ñu ñëw am émission bu am solo te dëgg-dëgg diina ji yëkkati ko rafetal àndoo bi tam yëkkati ko muy li nga xam ne moo xew si jamono ji si monde islami bi yëpp waaye rawatina li nga xam ne moom nañuy dund naqadi jullit ñëpp jullit ñëpp di ko jàmbat waaye bala ñoo sori ci euh, wax ji dañuy tatagal suñ consultant président AIS sëñ maam Cheikh Mbacke nga xam ne toujours mooy nekk ci émission bi dañu consulter tey ñu am gan gu màgg muy suñu Abdou Khadir Kebe suñu Abdou Khadir Kebe nag suñu maam Cheikh xam naa dana si ñëw dalal ko waaye bala ñoo def dara dañuy bàyyi ñu nuyoo ñu njëkkee si suñu consultant suñu maam Cheikh Mbacke président AIS mu nuyoo waaye dalal ki nga xam ne moom mooy invité bi tey suñu maam Cheikh ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu téléspectateur jërëjëf euh, sëriñ Hadi bisimilah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabion bi ihsan ila yawmi din mbokki téléspectateur TFM religion ñu ngi leen nuyu di leen ziyaare euh, di sant yàlla ma sunu borom subhaanahu wa di julli ci yonent bi waaye di nuyu bu baax di ziyaare sunu xalifa généraux yi nga xam ne ñoom la waa ay AIS di liggéeyal mooy association islam pour servir le am ci émission boo xam ne nag da cee collaboration boo xam ne da cee ànd ak TFM religion ñu koy def samedi bu ne émission boo xam dafa tudd rafetal sa diine rafete sa diine nag kenn ku ne xam na ne mooy ñetteelu xaaju diine la ñu mën tuddee ihsaan te diine nit mënta jaamu yàlla mënta pratiquer te rafetul moo tax kon nan lañ ko waroon rafetal ba nit ñi mën a dund ci jàmm ak salaam ba coow yi ñu gis ci àdduna bi ci wàllu xeex ak lu mu mënti doon ñu fexe ba sensibiliser sénégalais yi julliti Sénégal ñu mën a rafetal seen diine ba yi ñu dégg yëpp yàlla suñu doon subhanahu muccal leen comme ni ko mag ñi daan dunde moo tax ñu def émission bi kon ñu ngi nuyu xalif généraux yëpp sëñ Sidi Mokhtar Mbacke yàlla na fi yàgg te sëñ Abdou Aziz Amin xalif général de de de Tidiane waa Medina Baye Cheikh Ahmad Tidiane Niass Cheikh Ibrahima ñoom ñëpp waa Bounkounda Ndiassane ñëpp ñu ngi leen nuyu ci tur AIS di nuyu tamit borom kër gi nga xam ne ñoom ñoo moom télé yi muy président Youssou Ndour ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci télé bi ñëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo yoral disque religieux bi ci wàllu TFM religion muy sëñ Mao Cissé ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ñëpp ak soxna Ngañ Siri bu ko defee tey sëñ Adi ni nga ko waxee tey ñi ngi dalal ci émission bi nga xam ne mooy rafetal sa diine ñi ngi dalal koo xam ne ci biir kër gi la bokk waaye bokk ci min mën nañu wax ci biir kuréel gi muy association bi ndax association bi ni ko sëñ Abdou Aziz waxoon képp koo xam ne rek li fi mag ñi bàyyi woon li ñu fi bàyyi woon yitteel ko ñor na na bokk ci biir <coughs> moo xam taalibi la moo xam ab sëriñ la waaye kii ñu dalal tey sëriñ Abdou Khadir Kébé la tudd di borom xam bu mag koo xam ne wax dëgg yàlla ci biir kër sëriñ Tuubaa la bokk ndax soxna wàllu Mbàkke bu sëriñ Saaliw moom Serigne Touba xalifa général de Mouride nekkoon yàlla na ko yàlla dolli yërmande ak leer moo moo mooy jur soxna waalo soxna waalo moomu mooy jur sëñ Abdou Khadir Kebe miy toog mu nekk koo xam ne ba mu waree jàng jàngi na euh, jàng na xam-xamu religion euh, maanaam xam-xamu diine jàng lañ ci war aju lépp waaye ba jógee ci loolu tamit macha allah tabaarkalla dafa nekkaat di liggéey ci wàllu euh, adduna mooy li ñu tuddee wàllu entrepreneuriat di koo xam ne wax dëgg fa yàlla mi ngi liggéey liggéey bu rëy. am na kuréel goo xam ne moo ko entreprise boo xam ne mooy Séné construction moom moo ko yor di borom xam mag moo tax ñu indi ko fi tey ngir fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy émission bi xew-xew yi nga xam ne am na ci monde musulman bi rawat na li xew Birmanie kon suñu aadi suñu gën a ngi nii suñu Abdou Khadir Kébé euh, ñu bàyyi la kon ak kàddu gi incha allah. jërëjëf euh, maam Cheikh Mbacke donc dañuy dem directement rek suñu gan gi suñu Abdou Khadir Kébé bàyyi ko mu nuyoog mbooloo mi bala ñoo dugg ci thème bi suñu Abdou Khadir ñu lay bàyyi nga nuyoog téléspectateur yi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu euh, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli euh, ñi ngi bég am mbégte ci ñëw fii euh, ci seen invitation di waa di di waa AES AES suñu association bi nga xam ne li ko tax a jug mooy maanaam soufisme jàppale maanaam doxinu mag ña ak liggéeyu rëy yi ñu fi nekkee woon ñu ñëw taxaw ko kon su ngeen koy def ba invité ñu ñu bokkaat ci biir itam mbégte mu kawe kawe lay doon waaw bu ko defee euh, ngeen woonu tey ci émission bii nga xam ne mi ngi tudd al ihsan al ihsan di rafetal hmm. te ku ne xam na ne rafetal mooy tolloog daanaka sophisme ci ci lis ci ci ci lislaam hmm. ndax euh, an taxbudallaha ka annaka taraax hmm. lam takun taraahu fa innahu yaraak ngay booy jaamu yàlla da nga koy mel ne yaa ngi koy gis te ndax boo ko gisul moom mi ngi lay gis kon euh, euh, euh, jëmmi rafet rafetal mooy ragal yàlla te ragal yàlla jëm bi moom mooy diine waaw ndax diine ji woor yeeg yëpp ragal yàlla tax du koy def ndax ragal yàlla su amee rek maanaam nit ki mission bi tax yàlla wàcce ko ci suuf day daal di am muy jaamu ko loolu kon wax dëgg yàlla émission bu tuddee noonu alhamdulilah euh, ñu ciy sant tamit euh, njiitul te mm-hmm. TFM bi nga xam ne moo leen may opportunité ngeen ngeen taxawal émission bu mel nii kon loolu ko itam ñu ngi ko ci sant ndax loolu itam liggéeyal mm-hmm. diine la mm-hmm. loolu daal mooy li nga xam ne bu ngeen ñu wooyee tey ñu ñu war a waxtaanee ci lu jëm ci jullit ñi itam loolu mbégte lay doon jërëjëf euh, suñu Abdou Khadir Kébé jërëjëf suñu consultant di suñu maam Cheikh Mbacké de président AIS mbokk téléspectateurs yi comme ni ngeen ko déggee euh, suñ invité nuyoo na bu am solo suñ consultant nuyoo na bu am solo léegi tey nag dañoo ñëw ci émission bu am solo mu muy loo xam ne dafa aju ci mbirum jullit ñi ku ne xam na li xew tey ci àddina bi ci Birmanie ci Burma muy lu métti jullit ñi muy loo xam ne tey jullit bu wax tey si la war a wax. yàgg nañoo gis ñuy jël ay séminaire ay congrès di ko defal Palestine lu ñu ci jublu mooy parce que dañoo war a dimbale jullit tey Birmanie mi ngi am problème boo xam ne problème bu rëy la mooy ñu ngi rey nit ñi di leen solo di leen génnee seen dëkk yi waaye dégguñ kenn wax daanaka wax ji li tax ma wax dégguñ kenn wax mooy ñi war a wax di ay kilifa waxuñ waaye bala ñoo ñëw ci Birmanie war nañoo wax téléspectateurs yi tuuti rek seen histoire ci gàttal dawla mustaxil la dawla boo xam ne dafa nekkoon dëkk boppam ñu koy wax Arakan ci 1783 fa la ay jullit nekkoon toll ci 2 millions et di dund seen diina di jaay di jënd di dund dund bu rafet biñ demee ba seen jukko ju rafet jàpp askan wi nga xam ne ñoom lañ dëkkandoo rek. te xam ne moom mooy Burma ay bousier dëkk fa ñi nga xam ne ay jàmmkati xërëm lañ ngeen gis leen ñiy làmbaay noonu ñu commencé dugganteeg ñoom seen askan yi di jàng alquran di mokkal di nekk dugg ci lislaam loolu moo naq di bousier ba tax na ñu ñëw xeex leen ger leen ger bu métti génne leen seen dëkk boobu ba coloniser ko boole ko ci Myanmar loolu moom mooy premier seen xaddiya muy coow li nga xam ne dox na seen diggante coow loolu continué na ba mu sedd waaye julli ji jugaat nañ tamit di oote jëm si lislaam waaye oote bi tamit defuñ ko comme ni niñ ko déggee ni dugguñ si kër jàmbur oote dugguñ ci dëkk jàmbur oote waaye ay jukko yu rafet nañu woon nit ñi intéressé wu ñëw di dugg si lislaam waaye ba tey loolu neexut Bouzia boobu ba léegi nag ñu ngi seen kaw at mu jot rek siècle bu jot rek wala aqd bu jot rek da nga gis xeex bu gën a métti ci gàttal dem nañ ba nga xam ne léegi dëkk yi boole nañ ko coloniser ko mu nekk benn ñee ñi ngi toll si juróom fukki millions ñee nañoo passé 4 million ba léegi kon xam nga ñu tuuti lañ si biir dëkk boobu mayuñ leen kër bu baax kër gu baax gu nekk danañ ko toj ku fa jug nekk imaam di xutba danañ la lakk danañ la tuutiree dafa la lu bon loolu mooy continuer ba léegi sañ maam Cheikh Mbacke donc nga gis ne loolu euh, lu metti la waaye li tax jullit ñi juguñ association yi ñu bëri dañu wax nañ ñii amul luñ financé euh, umam umamul mutahida muy ONU financé wut ku leen dimbale kon duñ jug pour mu jarañu leen waaye Palestine bëri na ay association ak ay ONG yoo xam ne ñu ngi jug pour financer moo tax yaa ngi yaa ngi dégg coole bu jugee rek da gis ñoo xam ne dañoo organiser waa damay ñëw si sëñ Abdou Khadir lu tuuti li ma wax ci histoire Birmanie yow est-ce que yow mën nga yokk tuuti ci li nga xam ci seen histoire su ko defee ñu dogg dugg ci Lubul Mawdu bi ci di di thème bi. waaw euh, ñu ngi sant bu baax de la siyaare di delloo siwaat euh, yow rek di ko yeesal di xamale ne bur ki euh, kii ñooñu ngay wax jullit ñi di di di rohingyas bi ñoo ñuy wax maanaam ñoom ab peuple lañ bu bokk ci li ñuy wax alhaïda haïdatu suhub alhindiya hmm. maanaam. suxub hindiye mooy euh, populu indien yi ñoom foofu lañ bokk léegi euh, boo xoolee Birmanie am ñu naan ko Burma foofu ci jëm boppam day barab boo xam ne am na weneen xeet bu fa ne mooy waa bor waa Birmanie ñoom ñoom seen jëm bopp ay bouddhiste yi ñoo ci ëpp ku ne xam na ne am na ndaw su xam ne amoon na fi dañ euh, koy tuddee ci sax amoon na fi benn prix Nobel de nga xam ne tey euh, jëmmi soldats yi ne woon foofu ñoo ko sonaloon tëj ko sonal ko moom mu doon ab moom jëkkër ji ab ab anglais la euh, ci xeex yooyu mu doon xeex ci la amee ak jàmm ji mu doon woote ci la amee maanaam jaay satu nabal li salaam boobu hmm. waaye booy xool ak bouddhisme ni ñu leen xamee ci jàmm ñu xëy suba ñu dëkk ci benn barab ci réew ma muy araka maanaam bi ñaan mintaxa boobu ñu tuddee arkan maanaam foofu lañ dëkke bu di ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom waa ruuxin xiyaago yooyu ñuy wax ñooñu tey ONU waxal na boppam ne ñooy aqaliya maanaam ñooy minorité bi gën a maanaam sonal ci àddina dégg nga tas leen ñuy tukki ñu ñu di leen di leen génne seen réew ñenn ña ngay dem ay Thaïlande ñu ci des nekk ci ay ay ay Bangladesh jëm noonu te pourtant ci réew mi lañ bokk bañ leen maanaam dañ leen a bëgg a fitnaal du ñu am ay nationalité génn leen ci yu mel noonu daanaka loolu mooy mooy mooy liggéey bu mag bi ñuy def te dara warul ko lu mooy nekk gi nekk ay jullit te fas yéene doxalu l'islam doxal l'islam nag waxuñu ko ci di ñu parce que ñoom minorité lañ mënuñoo jël seen l'islam di ko imposer kenn. Mm-hmm. même fi nga xam ne Sénégal gi nga xam ne jullit ñi ab ab majorité lañ. Mm-hmm. gisuñu jullit imposer. Mm-hmm. Euh, maanaam l'islam kenn parce que ku ne xam na ne fii Sénégal maanaam réew la moo xam ne ñëpp ko bokk. minorité chrétienne fi nekk. moom ma ëpp sañ-sañ daanaka mooy xool sax ci réew mi parce que réew mi ñëpp ko bokk kon ñooñu mënoon nañ leen a ci lu mel noonu waaye ñu leen di iltihaad di leen sonal di leen génn seeni réew ñuy sonn ñëpp di ko setal loolu mooy li rafetul tey jii waroon nañoo fekk suñ président de la république bii fi nekk tey biñ waxee waxi France euh, ci affaire nu ñu koy waxee sax Charlie Hebdo boobu moo njëkk a jug na dem day solidariser kon normalement bu ñu defee lu mel ne lu jullit bu munta dem itam war naa mën a taxaw ñaawlu ko woo mbokki maanaam fi mu bokk muy muy aussi ñoom ñëpp ñu àndandoo te itam loolu ñu ngi ciy sant président turc parce que moom effort bu ne mi ngi koy def lu mel ne réewum Iran ñoom itam ñu ngi def effort tey ji Arabie Saoudite euh, Qatar bi euh, américains yi amee problème ci seen ngelaw lu mujj lii génne na trente mille trente milliards dama jum bokk trente millions de dollars. waaw maanaam yónnee ko may leen ko ñoom sax ñu ne étranger bu ñu ndimbalul étranger yi xatar moo ci ëpp léegi léegi est-ce que ñoom def nañ dara ci suñu mbokk jullit yooyu yooyu mooy foofu la problème bi nekk te l'islam kat dafa ñoo wax lu bëree bëri ci wàllu dimbalante dégg nga al muminuun dégg nga euh, euh, fit fit euh, tawaadudi nu ko waxee sax fii bi wa تراهمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا استكى منه هدون تداهله سائر الأهدى بالشهر والهمم يلا سن بن أديسيت نيوني المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص dégg nga yesu du bax du bax beneen mu ñëwati itam boo ñëwee ci alxuraan wal xasri ne lisaan li fi xutur el lisina amoon wa amilu salihat wa tawaasu bil xaq wa taw bi sabr wal bëti continué inna allaha yuhibbu lisina yuqaatiluuna fi sabili ka annahum bunyan marsus sëñ Tuubaa ñëw euh, waccal saxira naa yu waqirul kabir waccal kabir naa yu hiinul saxir waccal xulubu naa xalaat tawaadudi bila euh, nañ koy waxati waccal xulubu naa tawaadudi xalaat tawaadudi hmm, bila tanaasun bila tanaasun wala ba mu jeex yooyu buñ ko boolee mu wane ne addis soññ nañu ci jàppalante. Mhm. alxuraan soññ ci jàppale. Mhm. mag ñi itam te ku dem ci yeneen mag yi nekk ci dëkk bi yëpp itam woote nañ loolu. Mhm. ak nite itam woote ak ndimbalante. ak nite boo demee ci France bis bu set yaa ngi dégg ci seen télé yi ñuy dénoncé la xew foofu. ñu ne kon normalement jullit ñi ñëpp war nañoo jug doon benn dànk jàppale suñu mbokk jullit ñooy ak nite itam war naa jug doon benn dank jàppale suñu mbokk euh, nit ñoo ñu ne foofu. waaw loolu daal moo am li nga xam ne man naa gunnaa ko ci wax daal. jërëjëf euh, xam naa danañ ñëwaat ci leeral nga bu baax ci li nga xam ne moom la euh, euh, kilifa yi ak julli ji war a def waaye xam naa danañ ñëwaat si beneen question laaj la li tax li ñu war a def tamit defuñ ko. ñu jox suñu maam Cheikh Mbacke mu dolli ci commentaire ci li nga xam ne moom la suñu Abdou Khadir wax. ah jërëjëf sëriñ di Niass macha allah tabarakallah suñu invité tey di sëriñ Abdou Khadir Kébé dëgg yàlla commencé na ubbi waxtaan wi. ubbi na débat bi ci poñ yu am solo premièrement wax na ci euh, xeet woowu nga xam ne xeet wu ndaw lañ wu tuuti lañ nekk ci gox boo xam ne la leen wër lépp bokkuñu ñoom diine ndax damay wax ne àdduna bi actuellement nii depuis xeex yi fi mas a am yëpp bi ci ëpp mooy ci wàllu religion lañ gën a xeexee naam politique am na ñu ci xeex waaye ci wàllu religion lañ gis ne euh, lim lim faat ci ay bakkan bi yàlla wàcce euh, euh, maanaam diyaanaat yi mooy religion yi ci kaw suuf ak léegi dara faatu ko mu nekk lu bari loo xam ne xeet wu ne jaar nga ci euh, chrétiens yi jaar nañ ci wàllu xeex yi nga xam tey def nañ ko musulman yi jaar nañ ci ci ay jamono yoo xam ne orthodoxe catholique ak ak ni ñu mën tuddee christianisme ñoom ñëpp jaaroon nañ ci xeex yu métte métte ci jamono église bi bañ doon xëccoo xeet yu mel noonu mu mel ne tamit waxtu jamono yuñ ñu toll musulman yi dafa mel ne ñoom ñoo mel na lu aaye naam du ay du ay gu neex sax wax dëgg yàlla xeex moom ak boddikot ak rayante loolu taxut yàlla suma subhanahu wa taala sàkk suuf si suuf si yàlla da ko sàkk ngir nit ñi mën a dund ci jàmm ak salaam ba aay wi suñu borom subhanahu wa taala jëkk waxtaan ak malaayika yi sax inni jaam fi laati xalifatan xaalu atagenl ma yusudu fie waaye sug dima wa nahnu sabbi bi hamdi wan xaddu si lakk kon yàlla bëggut suufam si kenn ku ci tuur deret ba tax na tuur deret gis nga yàlla da ko moo xam ku du julli la moo xam ab jullit la euh, li ñu war a tuure deret mooy loo xam ne lu jaar yoon na loo xam ay loi la ñu teg la ba ne nii ak nii kër ku ko def ku tuur deret <coughs> war nañu tuur sa deret te fekk nga tey ko kon loolu ay loi yu ñu teg yoo xam ne yaakaar naa kenn bañu ko ndax loi yooyu Amérique boo demee ñu ngi koy atte feneen ñu ngi koy atte kon nga xam ne kon yàlla li mu bëgg ci nit ñi mooy ñu dund jàmm ak salaam naka noonu te moo taxoon wàcc yonent yen sallallahu alayhi wa sallam jàmm bañ ne ko ba wax ne ko taaha ma anzala alayka quran li tashqa illa tadhkira ji pour nga toskare ndax yenn chance bu toskare rek ñëpp toskare kon da ko wàcce ngir solution ngir moment boo xam ne dañ daan not nit ñi dañ daan leen rey daan ko ëpp doole ci penc mi daan def lu ko neex kon damaa jàpp yooyu yëpp bu ñëwee ba suñu borom subhanahu wa taala wax ñu ko ci alxuraan kat nett li ko ba pare wax musulman yi nañ gën a lënkaloo nañ gën nañ gën a booloo ànd nekk benn ndax xam ne ci bennoo ci la ñuy mën a amee jàmm ci bennoo mooy tax su suñuy noon du ñu mën a dara waaye bu féewaloo tàqali ko amee malgré que ñi koy def sax nga xam ne ñooy def tàqalikoo xëy dem mën nañu nekk ci jàmm waaye dañuy lor seen seeni seen i njaboot ndax dafa am euh, ndax foo am foo am majorité rek xeet woo gis wala diine joo gis ñu am majorité yi benn réew am na fu ñu am ay minorité léegi nag majorité bi nga am ci benn réew ba mën a défendre sa bopp euh, ba ba tax nga takk ngeen ko tas seen bopp am na sa minorité bu ndaw boo xam ne feneen foofu dañ ko fay jekku te loolu tey moo dal musulman yi Arabie Saoudi am nañ seen jàmm Sénégal alhamdulilah ñu ngi sant yàlla feneen feneen ñu ngi sant yàlla waaye tàqalikoo gi am ci biir l'islam nga xam tey musulman yi àndu nekk benn bay na chiite mais ñu leen tuddee chiite ak sunnite ak ñi nga xam moom lañ tuddee maa sama tey alxarak al al wahabi wala salafie nga xam ne tey actuellement nii jaxase bi tax na léegi musulman yi militaires yi fañ nekkoon ci ay gox yoo xam ne majorité bi nekk fi war na leen a sàmm bañ xeexee seen biir nag la saay-saay si daal di gaaw doxuñu ginnaaw daal ne ah kon faalal ñu kaw gaa faagaal gi ndax ñee tëluñ ñu kon nga féewaloo ak tàqalikoo tey gis nañ ni mu jëloon musulman yi mel ne kon bu fekkoon ne dañoo àndoon nekk benn ñi nga xam ne jàpp nañ ñoom ñoo jiite diine ji ñoom ñëpp bu fekkoon ne àndoon nekk benn ni ko yàlla waxee ci alquranu karim ndax am na saaru ñaan suratu shura ci biir alquranu karim boo xoolee euh, li yàlla wax ci biir aayoo ci ci biir ga dafa wax ne wa ma asabakum min musibatin bi ma kasabat aydikum lépp leen dal yéen jullit ñi rek xam bu ñun ñoo leen ko teg musulman yi ndax buñ àndoon nekk benn ne yàlla waxoon charaa lakum min diine maa wasa bihi noonu wala di axana ilaykum maa wasayna bi ibrahima musa wa isa an aqimu diine wala tatafarraqu fii bu fekkoon ne taqaliko wuñ maanaam suñ biir musulman yi nga xam ne kii tey mi ngi takk fiir kii kii tey mi ngi génn ki ci gaw diine ci ay masail yu ndaw yoo xam ne tey jii euh, moo tax Daesh juddu moo tax bokk arab juddu di toj ay jàkk di def yooyu maanaam loolu nga xam ne am na suñ biir ba suñuy noon gis ko dañu toog dañu reetaan loolu bu ñu mënee dox a ginnaaw noggutu ñeneen dañ ko daal def kon faw ñu càmbaraat suñu biir waxtaan waxtaanu biir def autocritique ñun musulman yi bala ñu xas kenn naan noonu lislaam noonu diine yi ñun ñoo njëkk a noonoo diine yàlla ji mm. ñoo njëkk a noonoo li yàlla suma subhanahu wa taala wàcce kon moo tax birmante li ñu dund damay bëgg musulman yi wala boog intellectuel yi wala boog ñi nga xam ne ñoo war ñu koy jàngat jàngat boo xam bu ñu koy yem rek ci bouddhiste ñoo def lii waaye lu tax bouddhiste yi ñi may def lu mel nii lu ñu fekk minorité bu ndaw ndax ndax li tax ma wax lu mel noonu Amérique nañ ci Amérique Amérique 32 euh, eh mu 52 états la bu mu jumul loolu la ñu wax mais ay état la ñu woon dañoo fexe ba boole an nekk bi dafa ñu tafarroq tàqalikuwuñ xanaa ko àdduna jaamul yàlla ñàkk la bañ jaamul gëmal yàlla gëmoo yàlla waaye yàlla maanaam li li nga xam mooy mooy mooy mooy mooy dund mbooloo mu ànd nekk benn rek yàlla dana leen fekk yërmaanam teg leen loxo ba kenn du leen aljamaatu rahma mbooloo mu ànd nekk benn yàlla dana leen suturaal ci bi ko àdduna ndax àdduna arrahman la fi suñu borom subhanahu da moo tax gis na américains bi seen minorité lu mu tuuti tuuti réew mum nekk kenn ñi ma ko laal kenn ñi ma ko laal américains yi ñu nekk Amérique seen seen seen seen euh, seen ressortissants yi nekk euh, bouddhiste moo moo xam Birmanie wala ñu nekk Afrique Sud wala ñu nekk fa gën a garaaw kenn ñi mën a laal ndax lu tax dañoo am ñu leen ñu leen ñu leen ñu leen garanté dañoo am ñun ñeen ragale dañoo am ñu leen rusé moo tax kenn ñëwoon laal waaye musulman yi nag ñun bi nga xam ne amuñu kenn ku ñu ragal tey jii xokkaam yi nga xam ne ñoo jiite muy leader yi nga xam ne ñoo jiite musulman yi moo demee Arabie Saoudite moo demee feneen feneen ñooñu tey bi nga xam ne yaafuus nañ ba topp ci ginnaaw noonu yàlla yi te yàlla waxoon ne walan tarda andaka yahud wala nasara tattabi' millatahum ñoom luy xeex diine rek yasuddu an sabilillahi kese lañ fi nekkee ñun nag biñu ñàkk a fayda dem topp leen lak te la ñime ñime googu moo tax tey ñu ñimee laal buddhiste yi te waxtu woo xam ne bañ leen laale di leen rey amul kenn ku ko jooy ni nga ko wax léegi amul kenn koo jooy kenn ci adduna bi koo xam ne jooy nga amul au contraire sax ñun musulman yi sax ñi nga xam ne fa la waroon njëkk a ñoom ñoo war a jooy affaire bi muy Arabie Saoudite wala naan euh, Arabie Saoudite nang waaye gis nañ ne bi coow li amee bi rey gi amee tax yàgg na am mais gisuñu ci benn déclaration boo xam ne jógeen Arabie ku di Turquie lañ gis hmm. kon nag dañuy wax ne bukki bu dawee ponkal ci doxinu la hmm. ñun ñoo yaafus ñun moo tax sëñ Abdou Khadir Kébé ni mu ko waxee noonu wax na dëgg noonu la amee solo ndax yàlla ay yi mu wax yëpp julli ni ñu war a nekk benn al mu'minu kal bunyaan yasuddu ba'du ba'dan ni mu ko indee nii loolu bu ñu ko defoon bu ko defoon tey kenn duñu mën a ndax américains yi ànd nekk benn seen ressortissants ak seen i minorité kenn ñëwul a laal waaye ñun nag bañ sàggane di xeex suñu biir di takk fi di rayante ci la ñu nag daal di ñëwee dëgg la macha allah euh, sama consultant si maam Cheikh solo mu mel kon euh, jullit ñi war nañoo seeraat seen bopp waaye mel na ni euh, ñu xamut ni ñuy xeexee lañ surtout ñun suñ suñ dëkk yi tey ñun ñëpp ñu ngi toog ne suñ président yi dañoo war a wax dañoo war a wax te dëgg-dëgg président tey war naa wax waaye moom dañoo war a wax ak moom ndax kilifa diine yi amuñ ñoom tamit pas responsabilité ci oote parce que bu fi ay xewee yaasu wala sax utee laay wax ndax alhamdulilah Sénégal moom yal na yàlla mos si xay waaye des fois am na utee yu fi xew. ñëpp gis nañ ko diggante président Karim Wade bi diggante ñeneen ak ñeneen amoon na fi diggante Senghor Lamine Gueye pourtant am na ay kilifa diine yu daan oote ne dañ si jox dox jàmm daan wax ne def leen li def leen li li moo baax li moo baax est-ce que tey kon du ne kilifa diine yi ñoo war a oote ñoom tamit si jaar yëfi kilifa wax ak président bi na ko ñun kët bëgg nañ nga def recours bëgg nañ nga def ay jéego. jaarale ko si OCI e yi wax ak Arabie Saoudite ndax Arabie Saoudite tamit nit mën na ko teg pression bu noppee jaay na am na alal ragal Amérique war nañ ko war na ko am na yeneen jullit yoo xam ne ñu ngi nekk si gannaawam toujours ñu ngi aji màkka ñoo la daxt ñoo la teg pression bii ne da ngaa war a def léegi lii bu loolu bu amee rek dana xam ne kon moom mi ngi ci lu mu war a def waaye est-ce que tamit pression boobu noonu suñ président yi nga xam ne ay jullit lañ. war a def est-ce que dugg na tam kilifa diine yi ñoo war a jiitu ci loolu ak ñu ci war a jiitoo ndax tamit damay wax toujours ne ñun xamul ni ñuy xeexee dañuy xeex indépendance dañ koy wax waaye bu ñu xeex indépendance bu ñu demee ba France tubaab bi li muy déclaré ci mooy dama leen a bëgg jël yéen Afrique yëpp def leen si benn saako tuuri leen suñ président buy défendre boppam xam nga lu muy wax déedéet ñun Afrique ñun Sénégal moom dañoo bëgg suñ saako bopp xam nga loolu du du bi dañoo bëgg ñun suñu saako bopp spécial. xam nga loolu xamu kon ko xamul nu mu war a défendre dama laa bëgg a def saako boole leen ñun Afrique tuuru leen ñu ne la demal nga teewal Sénégal nga ne man su may def sama discours ñun daal waaw d'accord mais utal nañu suñu saako bopp loolu nañu ñu Afrique suñ euh, suñu istiqlaal ba demee ba France ba si tubaab yi noonu nañ ko défendre suñ soxla tamit li may wax ni lu leer la suñuy soxla ci bitim réew ci arab yi nga xam ne mën nañ fee def lu nekk suñ dem di défendre problème Sénégal ni nañ ko défendre xam nga problème bi lan la mooy bu ñu waree dem ci arab yi ci niti diina yi duñ jël ñi nga xam ne xam nañ leen xam seen seen éducation xam seen environnement seen bia ñu boole leen ci mbir yi waaye dañ jël ku leen neex rek teg leen seen pegg bu ñu demee tamit lañ wax ci tubaab yi nañ wax ci arab bi te jàpp nañ leen nii ci ay colonisation yoon lañ waaye loolu ñun lu suñu suñu responsabilité kilifa diine yi lu suñu responsabilité suñu Abdou Khadre waaw euh, man li may njëkk a tontu ci sa laaj bu am solo boobu mooy euh, ni ko sëñ maam Cheikh waxee maanaam mbooloo mooy doole. te mbooloo ci sa wax léegi ni nga ko firee. maanaam suñu njiit yi. ba ñuy défendre seen bopp dañ naan nañ ñu wutal suñu saako bopp. bu ñu wutalee suñu saako bopp dootuñu am mbooloo. dootuñu <laughs> mbooloo dëgg la de. kon wutoon benn saak ñun ñëpp ñu dugal ñu ci. bu ñuy fipp ñu fippandoo saako bi dagg. ñu dàq ñi ñu ñu ñu ñu ñu maanaam ñi ñuy xeexal. Ah. kooku mooy mbooloo. dëgg la foofu la mbooloo mbooloo dañ ko war a wut. Ah, dëgg la lislaam dañu koo digal. Mhm. waaw wala wala ñu àndandoo nee na ñun dugguñ si saako bi. waaw àndandoo nee na dugguñ si saako bi waaw. waaw saako moom ñun sax waruñu ci dugg. <laughs> waaye waxin la rek waxin la waxin la waxin léegi nag mu des. mu des kilifa yi diine yi. ndax am nañ ci responsabilité. dama naan waaw ne déet. ndax kilifay diine ni ko Sénégal di jëfandikoo fii dafa dafa dafa dafa xaw a garaaw. Mhm. parce que dañu naan la euh, maanaam fii. Mhm. dañ naan sëñ bi wërta politique. Mhm. wërta wax ci nangam. te su sëñ bi noppee ñu ne ko sëñ bi wërta noppi. sëñ bi daa nangam nga xam ne day mel ne nitu sénégalais. kenn xamul li mu bëgg. effectivement effectivement. waaw kenn xamul li mu bëgg. maanaam day puus sëriñ bi. bu sëriñ bi duggee mënu ko génnal. kon léegi sëriñ bi nag foofu ni ma gisee moo war a jëlal jëlal boppam responsabilité bi ko yàlla jox. ndax koo xam ne. nit ki bi muy jébbalu ci yow. bu dee. Ah, maanaam suuf suuf suuf yi moom ci nit ñi la tasawuf moom mu bàyyi ah jaayante mooy jaayante mooy jaayante rek. Hmm. jox naa la sama bopp àddina ak alaxira hmm. bu ñu nee la jox naa la sama bopp àddina ak alaxira àddina gi li muy tekki. Hmm. mooy li may def nga jàppale ma ci. di ma joxe xalaat. bu dee àllaaxira nga mooy nga teg ma ci yoon woo xam ne su ma ci jaaree. dinaa mën a dem danaa mën a am ngërëmul suñu borom. ku lay wax lool nag ku lay wax loolu nag mm. dugal na la ci dugal na la ci ndax ab julit maanaam danaan xul ina salaati wa nusuki wa mahyaay wa mamaati lillahi rabbil alamin mm. kon lislaam maanaam ad dunya wal axira kullun la yatajassa mm. doonul ñaari xaaj benn la rek mm-hmm. mooy ni ngay jaam ci adduna liggéey boobu teg ko ci sell moo la yóbbu àllaaxira ca àjjana ja gën a kawe kon àllaaxira ak àddina taqaluwuñ ab sëriñ it noonu la war a mel waaye nag wax dëgg yàlla sëñ euh, euh, al amin sëñ euh, Abdoul Aziz Al Amin def na déclaration contre lu mel nii mm-hmm. bu dee ci yoonu murid tam ci war a wax sëñ Amadou Rafahi wax na ci. macha allah sëñ wax na ci sëñ Abdou Samad bu sëñ Soñ waaw wax na ci. sëñ Abdou Samad bu sëñ Soñ bi tamit. te ñoom amuñu kattan yor ay armée mm-hmm, déedéet loolu état moo ko yore. Mm-hmm. te décision yi jóge Sénégal itam président moo ko moo jiite moo ko mën waaye ñoom sëriñ si mënuñu ko. te gis nga ay wax ak état bi. am am nañu war sax nag. Mm. sëriñ dafa war. Mm-hmm. xam nga yéen ñi ay sëriñ ngeen li ngeen def itam rolu sëriñ la waaye bu ñuy wax sëriñ yi si ngeen di wax yéen mooy xalifa généraux yi ñooñu am nañ warteef am nañ warteef ci défendre jullit ñi parce que seen mission seen rôle mooy défendre jullit ñi euh, jàppale leen waxaat kilifa yi nekk ci réew mi ba maanaam kenn du def jullit duñ ko def ndax kat sunu mbokki chrétiens yi nekk ci réew mi tey seeni njiit tax nañ ba kenn ñi leen laal kenn ñi mu leen wax dara. dëgg la. kon euh, kilifay jullit ñi noonu war rôle boobu war nañ ko jouer bi ci topp mooy jullit ñi de manière générale nag ñoom am problème. Mhm. parce que boo xoolee ay wi ci adduna bi ci jullit ñi lay këpp. dëgg la fii de dama lay jox misaal sarxul awsat boo fa demee. Mhm. Isra euh, Amérique. jël nañ Israël samp ko fa. mu ñëw fekk réewum jàmbur ne nekk ak ñoom di leen toroxal di leen sonal kenn du wax. Mhm. yemuñu ci Amérique dugg Irak. song ko duggaat fa songaat ko dugg Afghanistan songaat ko. Euh, printemps arabe taxaw yaakaar ji ci amoon ñu dammatewaat ko. ànd ak Égypte samp fa seen Sisi boobu muy rey li muy rey ci nit mënees ko wax ñu wëlbati kooti te loolu lépp fa maanaam yéen ngeen wax fan ci àddina fu ngeen gis fan ci àddina bi fuñ sonale ku dul jullit. boo demee euh, euh, euh, Amérique latin doo fa gis benn pays bu ñuy bu ñuy xeex ak nangam nangam parce que ab jullit ñëw fa Afrique gii ngay gis tey ngay gis sax ay guerre civile ak yu mel noonu dafa am te loolu tamit loolu tamit nañ ko wax am na ci loo xam ne maanaam boo xoolee côté bi jullit ñi gën a féetew ñoo gën a sonn boo demee Nigéria bu ko anam ma nga fa boo demee Mali gii yaa ngi gis gaa yooyu lépp ay ay liggéeyu tubaab yi day nekk ci biir bu dee suñu réew yi itam yaa ngi gis France ñëw taxaw fi bi ñu imposé aw doxinam yaa ngi ko tudd léegi dégg nga teg ñu seen lépp tey jii dama la jox ma français bi ñuy wax ci Sénégal nga xam ne quatre-vingt-quinze pour cent yi jullit ñi dégg nañ wolof ñu jullit ñi sénégalais yi sax laay wax ñu jël minorité maanaam loo xam ne matul onze pour cent ñoo fi dégg français ñu jël français def ko langue officielle boo duggee ci euh, ci ci bi dañ ko ci wax. waaw mooy loolu yan na ma. mooy saako bi ma la wax rek. waaw ah, gis nga ko. <laughs> maanaam fi hmm, dafa yaatu. xam jullit ñi dañoo doole ñu jàppe leen ni ba noppi di leen dicté di leen dicté ay loi fan yii rek maa ngi dégg affaire genre bi ñuy tuddee ci fan yii genre nga xam ne fi ne ni lu lëmu kenn xamul lu mu teg nga xam ne droit. sexuel la ñuy wax droit sexuel. nit ki sañ naa am sexe bu ko neex sañ naa defet lu ko neex gone itam bu amee 10 ans rek sañ naa def lu ko neex yooyu yëpp dafa bokk ci musiba yi nga xam ne jullit ñi da leen dal seen kaw maanaam nag Birmanie moom problème am day problème boo xam ne mooy problème bi ñu war a waxtaan parce que moo gën a récent moo gën a mujj te itam dafa dafa métti dañ cee war a wax waaw jullit ñi daal war nañ cee jàpp ku mën a am sa weccet joxe yéen ñun en tant que association war nañoo def ay yëngu ci wut dara lu fa jëm. Mhm. fii ci Sénégal war nañoo organiser wu gouvernement bi jàppale euh, jàppale ba nga xam ne danañ mën a am benn fond bu mën bu mën a dem foofa jàppale leen su amee ay Sénégal war naa mën a wut ñu jóge ci réew mi ci bismil ci turu état bi. dem fa dimbale ji. maanaam maanaam étranger. weccet boobu weccet boobu bëgg naa nga nga duggaat ci. parce que tamit di dajalee birmaan weccet mi ngi bëri te ba léegi toogu toogu goo ne am nañ am naa nangam nangam place nangam laa ko jaarale loolu tamit beneen affaire la. waaw tamit si tamit fii Sénégal dafa bëri ñoo xam ne dañoo bëgg dee leen xaalis. waaw ñuy dajale. si turi julli état yi baatub laïcité. la ñuy jëfandikoo toujours pour dégager seen responsabilité. laïcité tekkiwut ne. Mhm. da ngay bàyyi jullit bi ci ci boppam rek. maanaam laïcité li ko lu ko gën a tegooti coon amul ci àddina laïcité sax dafay war a jóge waaye nag bu fi nekkee itam te jógee gu fi itam mm-hmm. yow en tant que état war nan ay jullit yaa leen jilif mm-hmm. parce que buñ fayul taxi nga duma leen waaw mm-hmm. am déet waaw dëgg la kon ñoom dañoo am ak ci nga organiser leen jàppale leen ci ni ngëm-ngëm su ko defee état waroon naa mën a jël kenn benn ndawul état samp ko mu taxaw taxawaayu wut ay fonds nit ñi lu waaye am yóbbu ko ca état jël lam ci am dolli ko ca wut ay ndaw yóbbu leen fa ñu def ay iqaasa maanaam def ay ndimbal. ca ña fa ne. Mhm. buñ amee sax même ay seet ay ñu mën a indi leen fii sax. Mhm. lool lool lool te loolu bu ko jullit ñëpp amal. Mhm. day rafet deuxième bi itam war na noo dem ONU. war na noo dem ONU. jël poids Sénégal pësal ko fa pour. ONU ak ak yeneen jullit pour ñu def ay résolution yoo xam ne dafay nekk li saalihi hadihi al aqaliya maanaam euh, dafay nekk ci euh, euh, au profit ci ci ci ci minorité bii nga xam ne ñoom la ñuy sonal fële waaw jërëjëf defe naa ne li nga wax tënk na lu bëri wax nga ci wax bi nga xam ne borom xam-xam ñoo ko war a wax ak jëf ji nga xam ne tamit ñi ko war a jëf moom mooy gouvernement doon naa doon nañ koy wax ci xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man raa minkum munkaran fal yugayiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adaful iman képp koo xam ne gis nga loo xam ne ñaawteef la lu bon la luñ sib la na ko dindi ci sa loxo boo ko mënut na ko dindi ci sa làmmiñ boo ko mënut na la naqari sa xol ñu ne kon ki war a dindi ci loxoom moom mooy nguur ndax dafa am doole am na ay armoom am na kaso am na tëj mën naa dóor mën naa def lu ko neex te dara du ko ci fekk waaye nguur li koy yëkkati li koy yëkkati ba mu jóg mooy boroom xam-xam moom mooy seet seetlu xam na lii kat jaaduwut awut joon mu wax ko teg ko ci xam-xam waaye boroom xam-xam tamit li koy yëkkati moom mooy ki nga xam ne daf koy méttalu ci xolam ndax boo gisee kiy dindi si làmmiñam ak ki dindi ci loxoom ki jiite mooy ki di kiy méttalu ci xolom mbir bu la méttiwul sa xol mënu laa naqadi ba nga wax bu la sa xol mënu mënu laa naqadi ba nga jëf kon dafa mel ni ataaful imaan boobu moo gën a fort sax ci ki nga xam ne moom mooy jëf wala ki nga xam ne moom mooy wax kon daanaka ñun mën nañ mën nañoo mën nañ ñëw tuddee bu ñu tuddee wut ci borom xam-xam mën nañoo tuddee ñi nga xam ne tamit méttiwul nañ ko suñ xol waaye nag da wax léegi ne sëriñ moo fi nekkal comme li nga junjoo aaya bi wabtaxi fi ma aataaka allah llahu daaral axirata wala tansa nasibaka min ad-dunya dëgg la lii daf lay yóbbu ci àdduna yóbbu la ci àllaaxira ndax dimbala rek sa mbokk jullit bu sonn loolu war na laa yóbbu waaye xam nga lu tax ma insisté ci wax pour nga wax xam naa si maam Cheikh dana si ñëw pour nga wax ci ñu war a wax ak gouvernement bi bëkk démboo Njaay yaa ngi dégg ñoo xam ne toog nañ dégluwuñ kenn wax ñu dem ci télé bi naan nañ ubbi frontière ñu jihaat xam nga loolu musiba la xam nga tey ku dem di jihaad foofu jihaad sax moom moo amatul jihaad bi ñuy wax nii nii léegi amatul yow baati allahu akbar nga am ak seet stratégie bi nga xam ne yow ki ngay xeex ak comme ki ngay xeex ak li muy doxalee moom nga war a doxalee léegi nag bu yàggut ñu ngi toog si télé bu mag di oote ubbi leen frontières yi xale yi génn jihaad xale yi bu ñu génnee fu ñu jëm. loolu musiba la donc loolu yëpp nopp bi moo ko waral. sëñ Tuubaa nee na bii xanii naa lil jinaan am na suwatin ahlu Badr xeex bañ fa defam tee nañoo xeexee. donc waaw léegi nag noppi googu nag noppi googu nag tooñ dong fi ne. noppi nag moom moo waral ñëwut wax xamul lu ñu wax mën nañoo wax benn baat mu taalam réew. koo xam ne tey nee na kii ki amee kurusam di julli di wasifa ñeme naa jihaat ak moom kooku sax waroo ko ubbil buntu naan ko ni ubbi porte ñu jihaat léegi si maam Cheikh noo gisee ne si la borom xam-xam yi si la kilifa yi responsable yi. war a waxtaanee nguur gi ngir rek jéem a moytu ñi nga xam ne waruñoo wax di wax ak xale yi ndax ñi ngi wax a xale yi di leen sol loo xam ne waru waru leen koo sol te xale moom xamul lu dul lii laa xam li laa jàng rek naka nañ naka nañu buuree pour wax ak gouvernement bi ñu jug si loolu xam ne loolu lu danger la. waxoon nañ ko fi émission nañu wax si jukko yi bañ noppee gis ngeen am na ñoo xam ne dañoo jug di saaga di leen saaga te loolu seen kaw la këppwaat donc loolu moo tax tey ñu jógaat si maam Cheikh looy yokk ci loolu. jërëjëf suñu aat yi euh, xam nga ñun dafa am côté boo xam ne dañ cee xaw a euh, yaafus loolay wax. Oh. mooy rawat na li ñu mën a tuddee mutasawif mutasawifuna yi oh. te loolu wax dëgg fa yàlla bu fekkoon ne dégg nañ euh, yàlla suma subhaana wa taala li mu jox ci alxuraan karim te mooy ngeen jug jihaad ci yoonu yàlla te oh. jihaad boobu du jihaad comme bi nga xam ne moo fi amoon moom lañ xam nga xam ne moom la ñuy di def sax laay wax ay daañ ay bokk xaram déedéet jihaad boobu amatul jihaad jug di rey ay waxuma la musulman musulman waaye ku musulman sax waru ko rey kon yooyu fawda la la yoo xam ne tey ji moo tax àdduna moo tax lislaam tey nit ñi maanaam gëq ko wàcc ko ngir lan jihaad yooyu nga xam daañ si ñu ko def ata islam salafi si ñu ko def kon euh, yàlla li mu wa bi muy wax sahabatu kiram yi da leen bii googu damir bi dafa delloo ci karim mooy jikko yi alquran karim làmboo nga day woote ci makaarib axlaaq di woote ci pardonné ci baale ci masla ci tolérance yooyu nga xam ne yonent bi sallallahu yàlla wax na ko wala kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu an wastaghfir lahum jikko yooyu nga xam mooy makaarib axlaaq yooyu la suñu borom subhanahu wa taala teg digal julli nee na wa bihi jihadan kabiran loolu la sëñ Tuubaa nekkoon loolu Sidi Hadj Malick nekkoon moom Abdoulaye Niass nekkoon maam Ibrahima Niass bu Kunta Ndiassane suñ mag ñu baax ñëpp ci loolu lañ nekkoon mm. kenn ku ne bi ngay ñëwee Sénégal da ngaa jël alquran karim fas yéene ci jihaad mm. mais ngàbboo nga xam tey moom euh, jamono gën a dem rek seen seen ñu maanaam adduna bi di gën a xam ne fañ tegoon seen tànk foofu la ndax damay wax ne miracle la sax li ñu mën a ijaas la ci ñoom euh, euh, moment boo xam ne bu ñëwoon woote woon jihaad kon da lay wóor na seen taalib yëpp ci loolu la ñu topp waaye wóotuñ ko dañoo ñëw woote ci ni yonent sallallahu alayhi wasallam daan woote ci makaarib axlaaq la ñu wootee ndax tey jii mboolem ñi jihaat tey ba a jihaat taliban yi ña foon dañoo fexe xeex jihaat ba teg fa état islamique mais gis nga nanguwaat nañ ko dàq nañ leen dem Pakistan kasalika bokk xaraam gi jug tey tey anañu fooñ foo leen di fekk ña ngay bu fekkee yow bëgg wax yëkk bii ne pare yow amoo foo yàkk sa nàkk a jullee kon jëratu mooy au moins nga tegoon nga tegoon euh, fa yàlla suma subhanahu wa taala waxoon yonte salaas wax ko nga xam ne bi ñu jógee euh, ci ci boobu nga xam ne jógoon rasu boobu yonte salaas daa ñëw dajal julli ñëpp ne ne jug jóge nañ ci jihaad bu mag bi li jihaad bu bokk tey ñu ngi jëm ci jihaad bu mag bi boobu saxaaba yi xamuñu woon euh, li mu bëgg wax sax xamuñu ko woon yonte salaas ne mooy jihaadu nafs jihaadu nafs ci nañ jëm mooy jihaad sa bakkan kon ba may wax ne musulman yi tey actuellement nii bu fekkoon ne jéem nañu jihaat ak seen nafs bakkan bi te bakkan am ay am ay ñu koy dimbali lu mel ne euh, seytaane ma nga ca dunya ma nga ca hawa ma nga ca dama wax ne ñeenti noonu yoo xam ne invisible lañ nga xam ne yow bakkan bi nga àndal te bakkan sax mënoo koo jàpp koj ko ne fii la nekk seytaane mënoo ko gis adduna moom yaa ngi lëmbe ci biiram bànneex moo la jiital damaa jàpp ne bu ñu njëkkoon a xeex yooyu def loolu muy seen jihaat kon tey kenn du tal rey sa mbokkum jullit waxuma la ak rey sax keneen koo xam ne du ab jullit ndax moom wala yeesu bi lay taala doy moo tax ni nga ko waxee léegi biñ déggee ci benn ci télévision yi am koo xam ne mi ngi yëkkat di wax ne euh, musulman yi dañoo war a jug ubbi frontières yi ah, ubbi tey bu ñu ko ubboon ndaw ñi dañuy génn dem jihaad wala yeesu billahi taala wax bu ko gën a garaaw amut ndax ñun tey dañoo tuumaal musulman yi pare dañoo tuumaal ci jihaad boo xam ne rey nit ak kese la ñun dañoo war a xeel nan lañ war a mën a génn ci loolu ba semer la paix tolérance boo xam ne tey jii ne yonent sallallahu alayhi wasallam defoon ba ko waa ji fe fe euh, euh, ba mu demee ko dana ko baal naa la kon ñun loolu la ñu a jëfandikoo na nga xam ne Euh, xaabil ak habil noonu lañ doon jëfandoo wala basa ko euh, ma ma ma ana maana euh, ma ana basit yadi ilayk li aqtulaka inni axaafullah rabbal alamina mm-hmm. kon loolu loolu la musulman yow loolu la suñu mag ñi baax dañ jëfandikoo ñun li ñu war a def mooy waa Birman la fa am mm-hmm. wur ñu wax kenn nañ ubbi forante nañ jihaat loolu wala yeesu billahi taala woote musiba la woote woote woote woote kaawteef la li ñu war a def mooy ñaan ndax a silaax don al mumin euh, silaaxul mumin a don boog silaaxul mumin loolu la ñu war a def ni ko mag ñi baax ñi daan ñaan yor seen i kurus yor seen lépp euh, boo demee Touba suñ suñ Touba teg na ay ñaan boo demee Tiwaawan suñ alaaj ma teg na ñaan Kaolack boo fa demee teg nañ ay ñaan Njaasaan ñaan yooyu nga xam ci lañ daan ñaan bu mu téye réew mi tey damaa jàpp ne loolu la ñu war a delluwaat pour ñaan suñ mbokk julli rekk birman yi comme ñun mënuñu la Arabie Saoudite man bu yoroon bu ñu yoroon alal ji moom yor ko danañ am nuñ doxale waaye mënuñu loolu ah, waaye wax ji nag wax ji nag wax ji waaw wax wax ji tee nañu maanaam maanaam oote oote oote oo ñu nga war a oo dëgg la waxtaan ak ñoom ci gàmm yi ci màggal yi ñu waxtaan effectivement ñu ñu ñu maanaam ñu orienté leen loolu sax mënut ci la ñuy dugg ndax boo gisee débat yi ñu def yi barki dem mu gis manifestation bi nga xam def nañ ko fii ci place de l'Obélisque ah, ah, kuréel yi ko àndoon macha allah ñu ngi sali di nuyu ba au passage waa Jamra ndax ñu nag ñoom ñoo ci ak AIS ak kuréel lépp taxaw nañ ci place de gi jógee Massa jógee fee nu mu tudd sax grande mosquée bu Dakar ba foofu maag yow ñoo àndoon dem nañ fa di si góor woo nañ état état du Sénégal euh, gannaaw bi nga xam ne woo nañu réewi arab yi nga xam ne ñoom saa su ñooy bàkku na ñoo yor diine ñoo yor ñoo jiite musulman yi woo nañ leen ndax ñoom dañoo sàggan toog nañ Arabie Saoudite deful dara euh, dara jël seen alal yu ko jox américain yu ko bi li ko yàlla waxoon yaa ayyuhal lazina in tuti'u fariiqam minal lazina uutul kitaaba yarudduukum ba'da iimaanikum kaafiriina maanaam topp topp nañ américains yi topp tubaab yi tey nga xam tey def nañ leen daanaka ay yéefar nañ mel lañ def amatu ñeewantu julli ñi lu dul jël xaalis julli ñi bi nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala dénk na ko naar yi ñu jël ko di ko jox arab euh, maanaam maanaam yi kon damay wax ne ñun loolu lañ man taxaw nañ place de l'Obélisque woo nañ état du Sénégal tamit comme ci euh, président euh, maanaam Macky bokk na ci membre Sénégal bokk na ci OCI yi woo nañ leen ko defee tamit nan lañ mën def ay procès de résolution waaw ne dañ Nations Unies d'abord sax wax dëgg yàlla d'ailleurs sax wax nañ ne actuellement nii waxtu yu ñu toll nii Nations Unies tey ñi ngi def ah, ñi ngi def assemblée ak extraordinaire boo xam ne ñu ngi koy def tey euh, nga xam ne euh, ki nga xam ne mooy Nations Unies ku jiite tey actuellement nii Euh, déet banque man jóge na fa keneen moo ko jiite tey mi ngi doog mi ngi toog tey la tey la wat waaw moom nañ def kii bi wax nañ ne Trump tey dañuy wax nañ ne sax danañ waxtaane affaire Birmanie waaye dañoo gis ne loolu lépp grâce à Turquie ak pays yu mel ne Sénégal ak ñi ci jàpp di wax moo tax lu mel noonu am waaye bu fekkoon ne naar yi kese lañ sukkandiku ak arab ak ñooñu dara du am kon daal gàcce ngàllaama Sénégal li yenn sens waxoon ci xadis kon daal ñi ngi waat bu baax a baax a baax état du Sénégal ak ñi nga xam ne ñoo ci nekk ak ñi nga xam ne mooy société civile ak organisme yi nga xam ne dañuy wax wàllu droit de ñu ngi leen ñu jugaat yëkkati seen kàddu comme ni ñu ko defee ci yeneen ak yeneen xew-xew yi bu ko defee ñu mën def pression pour na Nations Unies mën a woot loi boo xam ne a jàppale euh, sëñ Maam Cheikh ñu euh, jox rek sëñ Abdou Khadir xam naa ne dañu ñëwal ci li sëñ Maam Cheikh wax ndax moom suñ consultant la waaye macha allah dugg na ci thème bi lu am solo waaye sëñ Abdou Khari tey su ma la doon wax ne nag ñu indil yow stratégie boo xam ne yow xalaat nga pour ñu jël ko pour xàll machaakil yi pour Sénégal am ci tur Sénégal yàgg nañoo am jëroole ci affaire lislaam boo gisee pays yi ñu dëkk ak yëpp boo demee ci réew araab yi ak ci réew l'islam yi ñun nañ gën a xool bëti lislaam te loolu nag dëgg-dëgg mag ñi ñoo ko liggéey mag ñi ñoo daan dem ci tukki. di euh, oote lislaam waaye yóbbu ak xam-xam bu leer bu leer ci maam Cheikh Mbacke li mu wax ni euh, Cheikh Ibrahim Niass bindoon na ko euh, ba mu ko bindee ñu bëri dañoo wax ne sax lii nii dafay tayalloo nit ne rasul sallallahu alayhi wa sallam balaa sadda udwaana wa radda dalaala waaw xam nga loolu ñu bëri dañoo foog ne yonent bi xeex na xeex na xeex na mi ne moom yonent bi xeexut waaw tooñ la doon la doon défendre rek ak réer donc comme yonent bi li doon def duutum xeex xeex bii ñu ñu koy ñuy ooyee xale yi duut duut ko donc stratégie la stratégie boobu noonu loo gisee ne moom la ñu war a te Sénégal kenn ëpp lañ xel ci loolu loo gis ne moom nañu ñu war a jéegoo ñu war koo xelal ñu. Euh, ngir dëggal liggéey di wax rek. xam nga al jihad moom. boo ko boo dirasa xool ko da nga gis ne difaa la gën a doon. maanaam euh, maanaam euh, dafay défendre. day boppam. day jihaad ngir défendre la waaye du ngir attaqué fenn foo xam ne l'islam dafay attaqué amut waaw ci ci rawatina ci jamono yi yonante bi mhm, te loolu euh, tamit bi mu am na fu mu jugee ci xeex na jugee nañ ci al jihaadul mhm. asxar wal jihaadul akbar am na fu mu ko waxee waaw sëñ Tuubaa wax ne ujaahidu bil hulumi wa bit tuqa mhm. ragal yàlla ak xam-xam ci la jihaad gis nga xam-xam nag rawatina ci lii nuy wax. Mhm. affaire xam-xam lañ ci mën xam-xam lañ mën a joxe waaw. xam nga ay gone yu jug moom naan nañ ñu ubbil buntu ñu ñu ñu xeexi. non non non gone yi sax. fa am ñu leen ni taxarit. waaw ñu def loolu te ñooñu. Mhm. duñ dem seen doom du dem duñ dem léegi nag ci biir loolu. duñ dem seen doom du dem mhm. dama bëgg a wax ne loolu xel daf ko dul nangu. ndax benn bi ci njëkk euh, li jaadu ba jaadu mooy suñ réew yii tey ñoo war a jéem a dajaloo lu mel aussi yi taxaw waxtaan seen biir ñu àndandoo dem ONU loolu mooy jaxaat bi gën a mag. waaw effectivement déggoo ak ONU ñu seet ñu euh, solutionner problème parce que problème bi du problème bu jullit rek de. Mhm. problème bu nit la. Mhm. d' abord ay nit. humanité ñu fay rey mhm. ni ki ay weñ. te loolu loolu dañ ko war a régler. parce que même buñ dul ay jullit. parce que Sénégal bu fekkoon tey jii ñu jël meneen réew moo xam ne sequt ak islam fenn dara ñu sequt ak africanité dara. ñu koy sonal normalement warteefu Sénégal en tant que humain. mu jug wax ci lu mel noonu kon lu mel nii itam hmm. foofu lañ ci war a waxee waaw waaye affaire jihaad ak yooyu yooyu dañoo war a néewal luñ koy wax jihaad léegi mi ngi aju ci ñu jéem a jihaad ci suñu bopp ci jikko yu rafet jihaad ci wut ay école jàngal suñuy doom wut ay programme yu baax hmm. tey jii Afrique ngay gis dégg nga Afrique rek ngay gis tubaab yi di liggéey ay avion di defar lu ne ñun ñuy importer rek di defar <laughs> te loolu ñàkk a jàng la jihaad ju mag ji sëñ Tuubaa da ko waxoon ujaahidu bil hulumi wa bit tuqaa hulum boobu la ñu war a jihaade loolu ngëm-ngëm la war a doon ñu ci nekkee état itam jàppale ci mm-hmm. africain yi mm-hmm. ñu jël seen lakk yi nga xam ne mooy seen ñu xam ne xam-xam du lakk français du xam-xam anglais du xam-xam wolof du xam-xam ay jumtukaay la ngir accéder ci xam-xam te réew bu ñu amee euh, quatre-vingt-quinze pour cent yëpp déggandoo làkk loolu maanaam jumtukaay la nañ ci sukkandiku pour traduire ci xam-xam nit ñi jàng ko gaaw a gaaw gaaw a àgg fi ñëpp di àgg man man man man gisin woowu laa gis ne jihaat ji foofu la rek jëm su ko defee nag ñii ñu xam leen ab kaa lañ ñu néew doole di ay jullit di nit ñu leen di sonal ñu dël suñuy effort yëpp boole ko yee jullit ñi yee nit ñi su ko defee ñu dem xam naa waxtu bi waxtu bi dem nañu da ngay tàggatoo rek ci lu gàtt su ko defee ñu jox suñu maam Cheikh mu tëj waaw xanaa xanaa di sant bu baax rek ci euh, invitation bi di leen ci naw te di ci encouragé bu baax a baax ñu wëy ci di sant sëñ maam Cheikh mi nga xam ne ak sëñ sëñ sëñ Adi mi nga xam ne yéen a ñu woo tey pour ñu sédd lu mel nii di sant itam ki nga xam ne mooy mooy borom euh, tele bi mm. di Youssou Ndour mm. ci ci ci ci lu am solo lii mu jàpp na islam jërëjëf jërëjëf sëñ maam Cheikh nga tàggatoo ci jërëjëf xanaa sëñ Adi day kontaan nañu wax dëgg yàlla ndax euh, suñ gan gi muy suñ invité suñ Abdou Khadir Kébé macha allah fatabarak di doomi soxna wàlla bu sëñ Saliou Mbacké bu sëñ Touba wax dëgg yàlla koo gis xam ne xam-xam la fi indi tey waxtu wee xat rek waaye saa su ne da gis ne li muy développé sax tànk waxtu wee koy tënk waaye kon doon na gën a yéem waaye nag wax dëgg yàlla li mu fi wax am na solo xayru kalaa maa qalla wa la li mu wax indi na ubbi ay ay yu bare bare bëri indi ay solution wax na ci ni nga xam ne état yi noonu lañ ci war a taxawee wax na tamit rôle bi ci kilifa diine am war a am waaye wax na tamit ci problème bi nga xam te moo lëmbi àdduna muy war problème jihaad te am ñu bëgg a profité ci affaire birmanie yi di ci woote man gisoo suñu réseaux sociaux yi groupe whatsapp rek nga xam ne AIS moo ko taxawal ngir di ci liggéey am na ci commencé dugal ay ay photo ay jihadis naan Pakistan ak yooyu dama dama àddu ne leen yii bu kenn dugalati ay xeet photo yi ak xeet bu ko fi kenn dugalati ñu ni ñu yitteel mooy ñor ñu mooy topp njàngale mag ñu baax te njàngale mag ñu baax dañ ko tegoon ci yonent sallallahu daan jàngal alxuraan daan jàngale kon li am mooy wax naqarlu euh, liñ ci li ci toppaat mooy ay ñaan kon daal ñu ngi waat sénégalais yi euh, nañ nañ nañ nañ jéem a ànd ak waa Birmanie seenu naqar waaye ku ci mënul def loolu tamit ngay ñaan ngay ñaan ñaan waaye nag am ma ay jihaat xeet yu mel noonu wax dëgg yàlla loolu moom day gën a sotti ci sawara si pétrole te wala yees bi la yàlla na ci yàlla yàlla mosul kon daal ñu ngi sant bu baax euh, borom kër gi ni ko sëñ Abdou Khadir waxee ndax tamit lii opportunité la boo xam ne yaatal na ci diine pour ñu mën a waxtaane nan la man mën rafetal suñu diine kon ñu ngi koy sant baax di ko gërëm muy président Youssou Ndour ak ñi nga xam ne yor télé bi ñëpp macha allah taala ak ñu ngi koy sant bu baax ak son ngeen si ak ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa ah, jërëjëf euh, jërëjëf suñu maam Cheikh Mbacke di suñu consultant ci émission bi tey jërëjëf suñu Abdou Khadir suñu gan gi macha allah comme ni ko suñu maam Cheikh waxee rek wax ji am na solo indi na fi xam-xam ngi leen di gërëm bu baax comme ni nga ko waxee di gërëm euh, borom kër gi Youssou ak ki nga xam ne moom mooy Mawo Cissé nga xam ne moom moo amee mbir bi jiite ko ak soxna Ngagne Sylla di leen bu baax comme faaleen yi yàlla def leen def ñu baax waaye tamit damay gërëm ñi nga xam ne tamit ñoo nekkoon ci wàllu caméra bi di leen gërëm euh, maa ngi gërëm ki nga xam ne moom mooy Ablaye mu nekkoon ci wàllu caméra bi ak Sika caméra maa ngi gërëm Omar Sow ak Yahya Diallo ñu nekkoon ci wàllu caméra yi ak di ñu dimbale ci montage beeg yooyu ñu ngi leen gërëm yéen ñi nga xam ne yeneen téléspectateurs yi àndoon nag seen émission Al Ihsan muy rafetal sa diina ñu ngi leen di gërëm di leen wax ne émission bi seen émission la ñu ngi leen ci oo di ci oo borom xam yi te xam ne émission bi lépp loo xam ne xam-xam la ak actualité boo xam ne xew na ci àddina bi xew na ci jullit ñi émission bi dana dana lal ay chaise lal ay basangam waxtaan ci ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamina wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.